kenn du ko inquiéter kenn jàng dong wala doo ko xam loolu Seydi Ahmad Tijaan wax loo am am fatu loo nekk nekk wàll yi masala diine ji feeg jàngoo ko mënoo ko faram-fàccee ci alxuraan ak hadis loolu yàlla mayu ko kenn man ngaa xam dagan ngaa ñàkk a dagan nag ci jëfi nga rek nag waaye nag du tax nga xam ne génne àtte ba nag kon nag alhamdulilahi rabbil alamin bi nu amee sunu sëriñ yoo xam ne yi loo jàng-jàng ñu dàq laa jàng loo wedd wedd ñu dàq laa wedd loo xam-xam yàlla ñu ëppale la ko loo yéeg yéeg yàlla fekk leen ca kaw rek aha sunu sëriñ bu baax bu sëriñ Amadaay nag daana wax ni doomu soxna june nag war ngaa seet ci sëriñ si ko baax ko ragal yàlla nga ne yàlla ni diw laa bëgg a mel nee na ngay nga nga roy ko ci jikko ak ci sunna ruuxaani yaam foo nekk dala fay fekk di la dimbali sëriñ bu bëgg yàlla day bëgg ay taalibeem gën ko gën ci ko ci yàlla fop waaye sëriñ boo xam ne bëggoo sa benn taalibe jigéen la nee na kookee kat sëriñum àdduna la Seydi Ahmad Tijaan gis ngeen ko ay taalibeem ñi mu am kenn ku nekk dañu lay jaawale ak Seydi Ahmad Tijaan ngir martaba ci ci ci ci yàlla waaw waaw gis ngeen Seydi Hajji Maalik radiyallahu taala anhu mu xaddamam yi mu fi bàyyi kenn ku ci nekk koo ci daje da nga naa kii xanaa mel ne ni alaaji Maalik kenn ku ci nekk fa tabaarakallaahu alaaji Maalik mu taxaw la ñii leen fi wuute gis ngeen leen ñii ñu fal seen ginnaaw kenn koo ci dajeel da ngay defe ni kooka kooka mu taxaw la tubaarkàlla kon nag noonu la Seydi Ahmad Tidiane dafa nekk taalibeem boobee mu laaj ko lu mu ko bëgg a laaj te du laajul diingat laajul kontar daf koo laaj ngir bëgg a xam ndax su ko laajuloon tey jii suñu du ko waxee nu jaaxle nee na kon nag ku mokkalul salaatul faati nee na wasifa wàcc la na nee na wa man lam yaxfasil jawhara wala al fatiha lima axliqa fa kay fi fa yëg fii mutlaqu salawaati bi ay siixatin kii nag masalam la moo xam ne bi bariwul ci téere yi mu nekk moo di juróom benn fukkeel ba ak juróom ñeen dafa wax ni képp koo xam ni mottaloo mokkaloo jawharul kamaal te mokkaloo salaatu faatihi nee na man ngaa wasifaa ci salaatu bu la neex bu la neex nee na nag ñii dañu ni wasifa wàcc na la ñii ni sañ ngaa wasifa mutlaqu salawaati nee na naka noonu koo xam ne kii mokkal nga ko sax waaye waxtu wi xat na sañ ngaa remplacer jëwërul kamaal ci bëri salaatu faatihi ñaar fukk masalan su fekkoon te wala da ngay wasifa ba ak si jëwërul kamaal te fi nga nekk fu sobeewu la wala waxtu wi xat na boog te am nga yeneeni soxla yoo xam ne soo ko bàyyee mu yàqu au lieu nga jàng jawharul kamal nga sañ ko remplacer ñaar fukki péri salaatul faatihi nee na nag wa ibdaalu mutlaqu salaati fi lwasifati liman lam yaxfasa al jawhara liman lam yaxfasi jawhara wala al faatiha aslu indi nee na Seydi Haaji Maalik moom nag radiallahu taala anhu nee na ñaari wuute yi moom alaaji Maalik bi ko ci gënal mooy bi nga xam ne ñoom dañuy koy dañu koy watte baneen salaatu te te te ñàkk wasifa masalan dañuy wax ni ku mokkalul jawharul kamaal mokkaloo salaatul faatee wasifa wàcce na la mutlaxan ñii loolu la ñuy wax ñenn ñi ni déedéet na nga jël salaatu bi nga nekk man nga di ci wer di ci wasifa Seydi Aj Maalik ni nag moom jël baneen salaatu di ci wer di ci wasifa moo ko gënal bañ a wer bañ a wasifa baa di ngeen ko loolu nag defe naa bokk na ci masala yi xaw yee bees nee na waman ataal jawhara mutayammiman tadaaraka wastaxfara koo xam ni kii da nga doon wasifa te fekk na nag da ngaa tiim tiim boobee nga jàng ci jawharatul kamaal nee na na nga jéggalu rekk yàlla nee na jawharatul kamaal boobu nag ñaar fukki biir salaat faati moo koy remplacé am na ñu ni ñaar fukk ak ñeen waaye ñaar fukk daal mooy li nga xam ni moo gën a wér nee na ñi nga xam ne dañu ni wasifa gën a woyof werd nag nee na amuñu benn dalil nee na ndax wasifa dafa war comme ni werd war kon nag ñoom ñaar ñëpp benn gën a cee woyof sa morom yëpp muy werd daal moo jëkk a wàcc wasifa su ko ñëw waaye amu ci benn bu woyof nag nee na koo xam ne kii da ngay wasifa andi beneen istighfar bu dul astaghfirullah asimari la ilaha illa ayu xayoom nee na ba nga eggal nee na na nga baamu waat sa wasifa andi ko ni ko seex waxe nee na jigéen nag suy wasifa baa muy werd war naa muur yaramam wépp comme ni mu koy muuri ci julli te lépp loo xam ne lii bu feeñee ci julli ci jigéen julleem yàqu na su feeñee ci moom ci weddam wasifam na ko xam yëg ni weddam ak wasifam it baaxul sart yi nag moom la ñu leen waxoon ni mooy sart colub jigéen te bépp jigéen boo xam ne solo nga nu dul nii na nga xam ne bokkoo ci nisaa'ul mu'minaat yi yàlla waxoon ni xulli yaa ayyuhan nabi xulli xulli banaatika wa xul xulli aswaajika wa nisaa'ika wa bani wa bana wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna su fekkee da ngaa bokk bëgg a bokk ci njabootu yonent bi nii ngay soloo su fekkee bëgguloo bokk ci njabootu yonent bi nag kon nu la neex nga soloo na ana njabootu yonent bi ñoom ak njabootu Seydi Ahmad Tijaan naka la ñuy soloo mooy nii nee na istiaabu jamiil badini ilal uyuuna li ruyati nee na jigéenu yonent bi ak jigéenu Seydi Ahmad Tijaan dañuy sol seen i yére ba seen i téng dong ak seen i kanam dong ak seen i tànk dong di feeñ waaye leneen sëriñu ko feeñal nee na itam jigéenu yonent bi ak jigéenu Seydi Ahmad Tijaan tariixa bi nee ñi li ñu war a soloo moo di yére yi nga xam ni ñëpp dañu ko ràññee muy yére taar ñu bañ koo sol ba nga xam ni ñëpp dañu leen dàbbee ku leen gis xoolaat leen nee na jigéenu yonent bi itam ak jigéenu Seydi Ahmad Tijaan radiyallahu taala anhu yére yi ñuy sol mooy yére yi nga xam ni laa yasifu maanaam soo ko solee ku la xool xoo gis sa ye- ku gis sa yaram ci boppam nga xam ni dafay af ba nga xam ni comme waal yi waal yi nga xamante ni bi moom la ñu xeloo nga xam ne jiitaloo dara moom dongoy sol nga xam ne da ngay gis say ween ak ya nga jiital yépp nag nee na jigéenu jullit du ko sol te jigéenu Seydi Ahmad Tijaan waru ko sol an laa yakuna muhaddidan muhaddadan nee na itam jigéenu yonent bi ak jigéenu Seydi Ahmad Tijaan itam du sol yére boo xam ni da koy natt nga xam ne day natt ndigg li fa mu yem natt ween yi fa mu yem fa tabaarakallaahu nga xam ne xinjanti ko yi fu ne fa mu ko day sol robb bu jot boo xam ne day dànd yaram wi ba nga xam ne doo xam xinjanti koy yaram yi nee na noonu la jullit di solo ku bokk ci njabootu yonent bi ak koo xam ne ki bokk ci njabootu Seydi Ahmad Tijaan nee na bokk na ci ni jigéen yi jullit di solo ak jigéenu Seydi Ahmad Tijaan mooy doo sol pirig réyal sa bopp mu ni jëng wala nga ut musóor goo xam ne gii musóor yooyu nga xam ne day mel ni aw carton nga xam ne da ngay bañ sa sa sa sa bopp daanu nee na jigéenu jullit yi ak jigéenu Seydi Ahmad Tijaan yi du soloo noonu kon borom musóori carton yi nañu ko bàyyi ñëpp bëgg nañu bokk ci njabootu Seydi Ahmad Tijaan yi nee na njabootu Seydi Ahmad Tijaan itam buy génn du yor yére yoo xam ne du koy suura suura suur fa tabaarakallaahu def ci kareem yaag cuuraay yaag ba goonga goonga màkka gaag Sénégal yëpp jaxasoo ca nga xam ne bu dee tëll fii xet gi dina dem mais dina dem 100 mètres dégg nga ñu ne ah yaa ko solo noonu man de maa ngi ci col gi maa ngi ci nangam li nee na jigéenu yonent bi ak ji Seydi Ahmad Tijaan du solo noonu nee na nee na jigéenu yonent bi ak ji Seydi Ahmad Tijaan itam du sol coliinu góor pantalon yaag yérey góor yaag yépp ñi nga xam ne yonent bi nee na yàlla na yàlla rëbb jigéen yu solo noonu yàlla nee na képp koo xam ne sol nga coliinu góor tey jigéen wala nga dox doxiinu ji góor tey jigéen wala nga wax waxiinu góor te jigéen yàlla na la yàlla rëbb kon nag yéen jigéenu Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu yi ko tippoo ba jël tarixaam na ngeen bàyyi doxiinu góor ñi ak waxiinu góor ñi ak coliinu góor ñi yéen góoru Seydi Ahmad Tijaani na ngeen bàyyi coli jigéen yi ak waxiinu jigéen yi ak façon jigéen yi même yére yi nga xam ni ay ay ay Lagos la ak i waal ak jigéen yi nga xam ne jigéen ñoo ko baaxoo sol même tiisi boo xam ne jigéen ñoo ko baaxoo sol jigéen góoru Seydi Ahmad Tidiane du ko sol waaw waxuma laa ceen yi nag ak lam yi nag ak long long yeeg yooyu nga xam da ngay mel ni jeeg nee na loolu lu ñaaw la te yonent bi nee na góor gu ko def yàlla na la yàlla rëbb waaw góor goo xam ne gii dafa jël céeru gurus ni ko wàtt ci bakka ci ci ci ci ci ci baatam jël lam boo xam ne bii tubaarkàlla mel ni ab jéng def ci ab loxoom dégg nga maam bay bënn sax noppam teg ca waxuma laa sax di leeral teg ca loolu nga xam ni ku la xool comme góor jigéen nga loolu sëriñ bi bu ko yonent bi téréwul wa yàlla téréwu ko sax wax dëgg yàlla ñaaw na lool ci góor gu am fayda góor goo xam ne boo ko xoolee da nga koy jiwmali jigéen ah wax dëgg yàlla tariixa bi nanguwu ko diine ji nanguwu ko te itam ku ko defit yàlla yonent bi nee na yàlla na la yàlla rëbb te ñaanu yonent bi du dellu mukk ginnaaw te lii ma wax nag jubluwuma ci kontar kenn waaye bu ngeen gisee doomu sëriñ def ko wala ab sëriñ def ko it sëriñ boobee ak doomu sëriñ soosee da koo teg ci bakkanam waaye tegu ko ci yàlla tegu ko ci yonent bi kenn waru ko caa topp kenn waru ko caa roy ak lu mu lu mu mën mën rii ci yàlla ak baayam ak maamam lu ñu rii rii ci yàlla itam baayam ak maamam joojee digaluñu ko loola te it santaani wuñu ko ko teg yàlla santaani wu ko yonent bi santaani wu ko te itam amul genn ragal yàlla goo xam nit yegg na ca ba mën a def li na xar yàlla te itam bu fekkee ni da nga ni kooka dafa ragal yàlla ba moom jubluwu ci dara waaye waaye xolu yonent bi kay moo gën a ragal yàlla xanaa ñëpp te ba benn waaye dikkee ak jaarub xaalis wursam di ko nuyu daf ko du mooy ni ko lu tax nga di ma jublu di ma nuyu te yaa ngi takk yor xalu sawara ba ko rakku Aysa di nuyu nuyu itam tey jigéen da ko ni nun yonent yi ak ñi nuy topp duñu jox loxo jigéen kon nag su fekkee da ngaa sell ba yow doo am bànneex ci jigéen julalewul xanaa yonent bi moo la gën a sell kon te yonent bi delloo na loxoom kon nag yooyu yëpp ay caaxaan dong la mooy nekk nga sëriñ daal waaye bëggaloo topp sa baay wala bëggaloo topp sa maam sa bakkan nga gën bëgg a topp kon nag kenn warul la caa roy lii nag waxuma jubluwuma ci kenn góotiwuma kenn taxul itam ma kontar kenn waaye nag li nga xam ne moom la tariixa bi wax ak diine ji nag moom bu dee paaka suy putit dinaa ko wax moom ah Seydi Ahmad Tidiane itam musul loxo musu koo teg ci loxol benn jigéen musul jàkkaarloog benn jigéen nit di ko may wet sëñ baaba ko siit ka saalika mii nga xam ne bëkk démb la nun ñëpp xam nañu ko xam jëfinam itam musul gis sax jigéen ñi waxuma laa di joxante ñoom loxo nag waaw kon nag ñii ñooy roy waaye nii la ñu daan jëflante ak ñun ak ak ak ak ak jëflante ci diine ji kon nag kuy toppandoo da ngay toppandoo yonent bi wala nga toppandoo ñi toppandoo yonent bi waaye ñii nga xam ne dañoo fétal seen yoonu bopp donc kenn waru leen toppandoo nee na kon nag kon nag jigéen ma ni ji yonent bi bu Seydi Ahmad Tijaan moom nii lay defee nee na itam nee na itam ah yow jigéenu yonent bi ak Seydi Ahmad Tijaan tiis yi nga xam ni ñépp dañu ko soow ci rafetaayam ba nga xam ne foo ko sol ñi naa mbubum diw ma nee na bëgguñu sax nga sol ko waaw te mbubum diw ma te mbub moomay sawara dong la luy jëme nag nee na matu ko nag nee na ci sikkaru àjjuma nee na nee na sikkar sikkaru àjjuma mi ngi nekk ci ginnaaw boo julee tàkkusaani ajjuma ba noppi war ngaa jàng war ngaa dem ca jàkka ja lu jëkk waxtu nga ànd ak mbooloo ma ngeen defal laa ilaha illallah wala allah allah ba jant bi so looluy sart la ci tariixa bi te bari na taalibi ci yaan yu bari yoo xam ne du ñu def xadratu jumaa te xadratu jumaa ci tariixa bi la sëñ baaba ko si waxoon noonoon ni cin ñetti was la mu weete benn bu dee benn du taxaw bu dee ñaar du taxaw mooy tariixa bi ñetti was la weer wësi xadratu jumaat képp koo dul def doo ti jaar waaw bu ngant dikkee nag waaye ngant waxoon naa leen du ngant dug loo xam ne nit a koy utal boppam ngant day dikk ci forcé te ñi boroom nag du ca mën a génn waaw nee na nee na su fekkee ni ngant daf laa dab lu ba di fa xadul jumaat nag nee na loola baal nañu la ko am na sox ñoo xam ne ci mu xàdd bi tariixa bi nee ñu sax war nañu ko fay waaye nag ñeneen ñi daal nee ñu kenn waru koo fay nee na nag su fekkee da ngaa am say nganti bopp ba waxtu bi génn nag nee mooy nga yàlla mooy nga Seydi Ahmad Tijaan mooy nga mu xàddam bala may werd te mooy nga yonent bi itam te loolu itam mën naa bari mën na laa yóbbu ba dog la ci tariixa bi ndax waxta ko su bari ay accident dañu koy mujj wàcc rek mu nekk ci mu dem fourrière nee na waas yu ajuma woowu nag yonent bi ci boppam dina ca teew Babacar dina ca teew Umar dina ca teew Ousmane dina ca teew Alioune dina ca teew Seyd Ahmad Tidiane dina ca teew ak mu xaddam yu bari ak malaayika yu bari dinañu teew ci gii wasifa boobu waaw nee na gii wasifa boobu itam nee na yonent bi kañ la ñëw bu ñu amee juróom-ñaari per ci wasifa ba kere wasifa yu weey egg lépp yonent bi dina fa teew nee na wasifa mu boobu nag bu war bu reer bi ak wasifa ajuma bu ci nekk nag ña ca teew ràmm yonent bi dina leen ràmm ba ci seen juróom-ñaari doom sa doom sa sa sa sa taat ba ci juróom-ñaar ñépp dinañu soy ci gii wasifa boobu waaw nee na moo tax mu ni ويصوم في جميع الحاضرين مم يونت بي سباعة خاصة إلى السابع من أولاده يونت بي بوديك لانغو غراتم يوري يويو سيدي أحمد تيجان توك تي بوب أك خلفاهم يويو نينا رامو بيني دي بيني رامو ñoy ci wasifa bi ak hadul jumaat bi ramu bobu dina sar ba ci sa juroom ñaari doom kenn du ci demati sawar neena su fekkee ne nag am nga ngant yow taalibe tijaan bi ba mënoo dem ca jàkka ja te war nga caa dem te war nga faa demit ba am waxtu nee na bu fekkee ngant am na nag te ngant ma ni du looy utal sa bopp nee na kan kon nag ana nooy def mu ni ñetti ñii ba la ci neexee def ko moo di da ngaa war a def boo julli ajjuma ba noppi kon takkusaani ajjuma ba noppi nga def laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu ba muy junni wala nga def allah allah ba muy junni wala nga xaaj ko benn xaaju nga def ko laa ilaha illa allah benn xaaju nga def ko allah allah nee na junni bii nag ana kan moo ko wax junni bii muxaddam bi ko wax wala xalifa bi ko wax mooy muhammad ibnu abi nasar al alawi an seex tijaani radiallahu taala anhu nee na junni bii nee na Mouhamadou Nasar mooy doon benn ko ci muxaddam bi Seydi Ahmad Tijaan yi nee na moom junni bii moo ko jëlee ci Seydi Ahmad Tijaan am na beneen bu ñuy wax xam ne junne ñaari téeméer la te mooy juróom-ñettee fukki juróom-ñettee fukki masala ba nee na am na ñu ne boo julee ajjuma ba ba noppi kay te nga am ngànt da ngay dem toog yow kenn nga def junni ak ñaari téeméer ci laa ilaha illallahu wala allah allah wala nga xaaj ko lii nga def ko laa ilaha illallah lii nga def ko allah allah ana junne ñaari téeméer yooyu nag kan moo ko wax junne ñaari téeméer boobu Mouhamad Haafas Tijaani Sinqiiti yi nee na moom la jëlee ci Seyd Ahmad Tijaan am na ñu ni junni ak juróom-benni téeméer nee na am na ñoo xam ne ñu ni bu fekkee kenn nga te am nga ngànt boo julee tàkkusaani àjjuma ba noppi na nga def junni ak juróom-benni téeméer ci laa ilaha illallah wala allah allah bu la neexee nga xaaj ko lii nga def ko laa ilaha illallah lii nga def ko allah allah ba muy junni ak juróom-benni téeméer junni ak juróom-benni téeméer yooyu nag ana ko xam ma ko wax jële ko Seydi Ahmad Tijaan mooy Muhammadul Xaari radiyallahu taala anhu bi nga xam ne suñ suñ suñ moom ci la jaar lii yëpp Seydi Haj Maalik indi na ko ci faakee ba nag waaw kon nag ma ne ñetti riwaay yi yëpp ñetti muxaddam yi ñoo ko wax boo ci def baax na waaye defe naa ni nag bi nga xam ne sa silsila ci moom la jaar nga def ko nag defe naa ni moo gën ci yow yow nee na am na beneen boo xam ne bii ñaari junni la boobu nag Seydi Ibrahima Rayaahi yi moo ko wax ay taalibeem ni leen yalzamukum baada asril jumaati min laa ilaha illallah junni ñe- ci ñaari junni wala junni ak juróomi téeméer wala junni ak ñaari téeméer laa axala min al alf nee na lu gën a néew junni nag kenn waxu ko ci tijaan gi nag moom nee na loolu mooy juróom-ñetteelu fukki masala ba ak ñaar juróom-ñetti fukkeelu masala ba ak ñett moo di jigéen ñi ci suñu bopp bu ñuy wasifa nag du ñuy biral ñoom du ñu wax ca kaw bu ñuy def xadratu jumaat itam du ñu wax ca kaw dañu koy yàllu waaw nee bu ñuy werde bu ñuy wasifa lépp ci yem nee na juróom-ñetteelu fukki masala juróom fukkeelu masala ba ak ñeent nag nee na su fekkee ne yow dangaa dikk fekk ñuy wasifa nee na te ñu jiital la te ñu jiitu la nee na na nga dikk dale fa nga leen fekk nee na soo noppee mm, foofee nga leen fekk nag foofee ngay nga ngay ngay la la ca des nga fay ko nee na nag waaye bu ñuy ñaan yow doo ñaan doo wax it inna allahu malaayikatu doo wax subhaan rabbika rabbil izzati da ngay yem foofee ñu yem te nga dam commencé waat fa wasi wa commencé soo noppee nga eggale ko noonu ngay def nee na su fekkee ni nag suñu la rawee itam ci wasi wa nee na su la neexee masalan nga dikk leen fekk leen ñuy ñuy sikar ñuy wasi wa ñu ngi ci laa ilaha illallah su la neexee nga dem nga beru fële wala nga commencé astaghfirullah asimali si laa ilaha illa ay xayum def sa salaatul faati ba dab leen dem ànd ak ñoom loolu beneen masala nag loolu ku mu neex sañ nga koo def ma ne ku mu neex nga dem àndee ñoom fa nga leen fekk nga yem fa nga dale fa soo noppee la nga xam ne weesu faat na la nga fay ko bu la neexee itam nga commencé werd ci wasifa ci suuf ba dab leen dégg nga maam nga ànd ak ñoom eggale wasifa yi waaye nag sañuloo yow nga dem doon wasifa mbooloo mi dikk nga toog di leen xaar yow sañoo loolu nag moom
boo dee fay da ngay fayaale Fatiha.
déedéet boo dee fay dañ si daaj maa ne wala wa- wala wala taawusan wala tabasmula yaa ayyuhal masbuuxu nittal amala boo dikkee rek da ngay jibal directement ci astaghfirullah asmani si laa ilaaha illa qayyum ni nga xam ni boo doon bu bu ñu la rawoon julli nga ñaari rakkaa nga jóg di ko fay boo jógee dooli xaam da ngay commencé rek ñaari rakkaay ca faate ba ndax yooyu dafa génn julli gi moo tax faate bi ak as onze village rajo nekkul ci biir werd yi moo tax loolu dañu ko def pour ubbi ko rek te ubbi woon nañu ko ba noppi te um, ki ñëw ci da nga meloon ko topp ci ilimaan moo tax nee na juróom ñetti fukki masala ba ak juróom moo di werd wasi werd ci boppam dañu koy yàllu wasi fa nag dañu koy mbiral njëgam ànduloo ki nit su ngeen àndee ki nit nag da ngeen koy yëkkati ca kaw waaw werd kenn du ko biral te wasifa itam bu fekkee da ngaa ànd ak mbooloo kenn du ko yàllu kon werd dañu ko yàllu su dee yow kenn wasifa su dee yow kenn nga yàllu ko waaye soo àndee mbooloo da ngeen ko war a yëkkati ca kaw kon nag am na ñoo xam ne ñii bu ñuy werd te nekk ki nit dañuy wax ca kaw loolu nag gënul moom ndax da ngay seeni nit ñi kon nag dañoo bëgg soo nekkee ci nit tey werd ñuy werd wala ngay wasi wasifa te ñuy ngay wasifa te àndu leen kon na nga wax ndànk bañ a seeni nit ñi su fekkee ni da nga bëgg di wasi mbooloo. te sa jàpp di faral di toj. nooy def ak jawharatu kamal bi.
waaw kay loolu boobu masala ma nga ca kanam su fekkee ni masalan dañu laa rawoon sax ci wasifa te yow nag mm, yow mënoo jàng jëwharatul kamaal soo àndee ak ñoom ba ci jëwharatul kamaal nag yow moomu yow alaaji Omar da ngay jël sa salaatul faatiha remplacer ko waaye doo ànd ak ñoom jëwharatul kamaal su fekkee ne sa njàpp dafay faral di toj comme comme nekk day nekk lu mel ni salas kon yow moomu àtte ko nga am ngant ba nga xam ne da ngay remplacer salaatul faatiha yi jëwarul kamaal lay doon waaye dootu jàng rek jëwarul kamaal waaye loolu ma nga ca ma nga ca ma nga ca kanam am na mu ca masala sax mu ca sëñ baa ko si laajoon sëñ sëñ haaj maa dinaa ci egg moo tax ma ni kon nag lii masala bii ma la wax mooy juróom-ñetti fukkeel ba ak juróom benn nee na képp koo xam ne kii dangaa toogoon ba jël nga jàpp ne fajar jot na nga daldi julli daldi werd daldi wasifa ginnaaw ba nga yëg ni kat ah kon kat fajar jotul ni ki masalan sa montar boo xam ni dafa avancé woon waxtu baa ñaari waxtu nga jóg 3 heures wala 4 heures jàpp ni 6 heures nga jóg nga daldi jaa nga daldi julli daldi werd daldi wasifa ginnaaw bi nag nga yëg ni kat fajar jotul kon bu fajar jotee da ngay julliwaat te da ngay wer daal wasifa waat waaw waaye su fekkee nag da nga koo da nga doo da nga dafa nekkoon ci jamono jiital nag te julli woowu nag kon nag jiit jiit ji da ngay jiital te doo wer daal doo wasifaat waaye nag da ngaa da ngaa nekkuloon ci jiital moo tax da ngaa jàppoon ne fajar jot na waaw nee na jëwaratu kamaal ku masaa kuy masaa ngir ab góom wala nga yor salas doo ko jàng da nga koy remplacer salaatul faatiha mooy li nga yor waxoon neke ni ki lan koo xam ne kii dañoo band sa bopp mbaa ñu band sa tànk nga xam ni da nga koy masaa kon léegi soo xamee ni yaa ngi wasiba nee na boo ëgsee ci jëwarul kamaal da nga koy remplacer salaatul faatiha nee na masalam juróom-ñett fukk ba ak juróom-ñett moo di lu demee ni ki benn lo benn kanam wala bu demee ni ki benn loxo wala mu nekk benn tànk nee na laa yemnahu a laa yemnahu xiraata jëfandal kamaal inda baadi ka seex alxaaji malik si radiyallahu taala anhu nee na lu demee ni ki kanam mbaa loxo mbaa baaraam ak yu demee noonu nee na su fekkee noonu doo nga la toll boo ko masaa nee na dagan na nga jàng jëfandal kamaal te loole kon du yàq loola nee na loolu nag Seydi Hadji Malick wax na ko loolu bokk na ci laaj bi nga xam ni sëñ baaw ko si laaj na ko Seydi Hadji Malick mu wax ko ca téeréem booba nee na su fekkee ka masaa nag ci mbooloo la nekk kon day nekk mi ko comme kenn day day remplacer rek comme nañu ko waxee woon nee na su fekkee ne da ngay werd ba yàgg sa njàpp toj nee na kon njàpp ma werd ba yàqu na da ngay dem jàppiwaat commencé waat werd ba nee na képp koo xam ni kii da ngay doyadal werd baa ngay doyadal wasiba wala ngay doyadal jëwharal kamaal wala xadratu jumaat nee na yàlla dina la nattu ci sa alal mbaa ci sa yaram mbaa ci sa diine ñi nga xam ne da ngay day toog ba yàgg ma ni ma daal dama sawaratul wala ma daal damay taayee léegi na ma mënoon jaamu yàlla mënatuma ko jaamoo yàlla nee na li gën a bari boo ko seetee werd wa wala wasifa wala xadul jumaat je am na doyandigul gu guñ ca def te loolu koo def rek yàlla nattu la ci ñett yooyu nee na nee na juróom-ñeen fukk ba ak juróom-ñaar ak ñaar moo di werd yi nga xam ne du werdu laasim ni ki bu ñu la noon defal junniy latif wala ñu ni defal junni salaatu faati wala yu demee noonu nga xam ne yeneen i werd la yoo xam ne bokkul ak werdu faata wi soo ca juumee may nañu la nga def ca téeméeri astaxfirullah comme boo juumoon ca werdu farata wa comme ni nga xam ni boo juumee ci naafila na nga koy sujjóote mooy na nga doon sujjóote ci farata lu dul juróom benni masala ya nga xam ni moom la ñu waxoon ci lëx dariñ ni moo ma leen wutale waaw nee na juróom-ñeent fukk baal ñeent moo di su fekkee ni dangaa yaakaar ndox ngir te waxtu wi xat nee na dagan danga dagan na nga tiim werd tiim wasifa dégg nga de na tiim na dagan na nga tiim werd boo ko defee wasifa nag nga nga yeexa ko ba am ndox nga soog a wasifa maanaam su fekkee ni waxtu bi dafa jot waaye nag léegi waxtu waxtu bi xat na nee na dagan na nga tiim daal di julli te dagan na itam nga tiim daal di werd nee na su fekkee ni nag dangaa yaakaar ndox dagan na nga yéexe weer wasifa bi ba am ndox soog a soog a nee na itam su fekkee ni masalan da ngaa am janaaba dagan na nga tiim werd waaye wasifa bi nag dagan na nga yéex ko ba am ndox sangu soog a werd soog a wasifa nee na su fekkee ni dangaa am diir bu yàgg nga xam ne sa kurus ba ëpp na benn per fàttaliku woo ko ba benn bés nga lim sa kurus muy téeméer ak benn nee na werd yooyu nga ci nga ci ëppal yëpp dagan na nga jànge ko benn téeméeri astaxfirullah ma ne su fekkee da ngaa doon nax sa kurus ndekki kurus gi ëpp na nee na nga toog lu yàgg sa koo seetlu fat fat fat seetlu ne kat kurus gi téeméer la ak benn nee na diir boobu nga ca wedd yëpp dagan na nga jàng ko benn téeméeri astaxfirullah nee na su fekkee da ngaa toog ba yàgg itam sa kurus nga fàttali ko ci ni benn per manqué na ci nee na dagan na nga def ci astax nga nga nga werd benn werd jànge ko lépp téeméeri téeméeri astaxfirullah nee na wasifa ci benn waxtu nag russa la rek boo xam ne ci Seydi Ahmad Tijaan moo ko def waaye li gën moo di wasifa suba wasifa ngoon jëmm maa façon ribaax la Seydi Aj Maali wax nee na wasifa dinañu ko jiital comme bert su fekkee ni da nga koy def ñaari yoon waaye su fekkee benn yoon dong nga koy def kon sañoo ko jiital na kon nee na jàng jawharul kamal te andul sart ya ñu ca waxoon ñii ni na wér na ñii ni wérul ñii ni su fekkee da ngaa jàng jawharul kamal te sart ya ñu ca boole woon defoo ko su fekkee ni da nga koo fàttali ko jigéen na nga baam werd ba su fekkee fàttaliwu ko ko rek na nga def astaghfirullah te doo baam nee na su fekkee da ngaa tiim jàng werd werd faata wi nee na werd